20 ans d'existence Assane Ndiaye et son label Bawol Production le 27 juillet à l'arène nationale mbokk yi déglul sargal Abdoul Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ni 20 ans la ànd ak Abdou Aziz Ndiaye te dara ñaawul moo tax combat bi dox ci diggante Moussa Ndoye ak Mbaye Guy moom laa koy jagleel juróomi grand combat beneen bi war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak armée bu ngéwél 19e édition drapeau Aïda Mbodj koo koy jigéen ju mën góor la lionne de Bawol li gën a rëy ci bés boobu Aïda Mbodj moom lañ koy sargale ci bés boobu la ñuy sargal mbokk yi Badara Gadiaga le bienfaiteur de Grand Dakar original boy town Kéba mi bëgg lamb bëgg lamb jëm ca kanam Assane da ko fay sargal maa béy borom Bambey saltige bu mag bi Assane Ndiaye da koy sargal ci bés bi ci bés boobu mbokk yi Valdo dina fa jàkkaarloo ak Boy Dakar Farouche jàkkaarloo fa ak Kaw Cissé ak ay combat préliminaire yu yéeme sax ndaxte vingt ans du ay jaaxaan Assane Ndiaye ni damaa waxtaan ak amateurs yi ñu ni ma entrée supporter bi def ko 3000 francs boisson originale ETDR établissement Touba Darou Rahman Distingo Monix Bet kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bésu delloo njukkal le 27 juillet ci arène national ñu ànd ci ak Bawol production jërë ngeen jëf mbokk internet ñu suivre sur Kewel fo di leen nuyuwaat nag bu baax a baax a baax amaan mbégte ak contentement du nuyu kilifa diine yëpp du nuy suma sëriñ notre responsable moral bi daal di Moussa Sy moom Moussa Sy daal muy Seydou Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla ar ko yàlla sàmm ko du nuyu yëpp di ñaan réew mi yàlla fi yàlla def jàmm di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo tawat yal na yàlla fëgg seen bopp. ñi caabi féete ginnaaw neen yàlla génne di ci ñaanal sama papa rek de guerre kon ni mu koy waxee rek yal na ko yàlla génne ci barke yonent bi albarka kayri ak képp ku fa nekk. tey nag ñu ngi fi si géejawaay ñëw seesi koo xamante ne suñu papa suñu xarit mu nekk koo xamante ni nee naa leen lu ñàkk fayda du ko génne te heure bu waxee rek li muy wax nit ñi dañ koy dégg muy taaliba Aboubacar si bi nga xamante ne gëmul lu dul Seydi Hadji Malick si kon li may wax rek muy ki ne moom mooy Père Diaw nekk suñu papa di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla aar yàlla sàmm ko moo dund ba fekk lépp ci barke Yonent bi tey rek dañuy waxtaan ak moom ci làmb bi nga xamante ne moom lañ jógee mënul ñàkk muy Balla Gaye Tapha Tine Père mañ daan gis muy takk ndi gëm Père Diaw mu ñu daan gis talul dara nekk ci lépp ñu gis per Diaw bu resté serein ba jusqu'à présent ñu fas yéen waxtaan amuñ ci combat boobu pendant avant et après dañ koy bàyyi mu nuyu mbokki internet yu koy seetaan te ñi ko doon laaj Pape maa ngi lay maa ngi lay fay maa ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur maa ngi ñaan yàlla na yàlla yokk seen leer may ñaanal suma sëriñ alaaji malik yal na yàlla yokk ay leeram di ñaan sëriñ Babacar Sy yal na yàlla yokk ay leeram di ñaanal waa Tiwaawan di ñaanal waa Touba di ñaanal kilifa diine yëpp di ñaan bay ñaanal chrétien yi di ñaan ci réew mi jàmm te di la wax ne Fatma à vrai dire tollu naa boo xam ni suite internet yi dama ko wàññi lu bare bare bare waaye dama wax toujours Médoune ak Fadal Fallou Ndiaye sud yëpp nag sumay sud lañu ak booy bu baax bi borom barbe yi nu mu tudd booy bi yor sud euh, damay fàtte xaritu soq bi abu suma doom la joo xam ne moom tam duma ko fàtte mukk ndax fépp fu mu dem rek ma ngi jël engagement per jaw lii per jaw la may dellu di gërëm waa géejawaay yëpp di wax ni Fatma dimanche passé làmb ju mag la woon Eh, kon bu fekkee ni làmb ji dafa paase nga déglu nit ñi kenn ku nekk révélé wax li mu war a wax kenn ku nekk woo ma pour ñu waxtaan mais yow dama mënul ci yow dara ngir Serigne kër si eh, nga topp ma ñëw suma kër wax a wax ba ma ni la ay ca ñu dugg ci waxtaan bi te toll naa ci war a wax nag ci làmb ji ndax presque saison bi tëj na ñun au niveau du Guédiawaye ci ñun Fatma ba nga laaj ma leneen ba nga laaj ma leneen loolu nag mooy daaneel gaa yëpp fi may njëkkee ak yow Balla Gaye Tapha Tine bari coow mais Père Diaw dégguñu ko ci combat bi communiqué na ci tuuti rek Balla Gaye ba mu demee INSEPS mais lan moo taxoon bi ci Balla Gaye Tapha Tine Père ci waxu ci waa avant tout maa ngi ñaanal suma doom ji la dëgër maa ngi ñaanal beg ay mbay maa ngi ñaanal ñi jàppale la dëgër yëpp te di wax ni Bécaye kenn mënu ko fay Bécaye defal na Lac de loo xam ne defal ko Guédiawaye defal ko Casas yëpp defal ko réew mi defal ko bépp mbër defal ko bépp promoteur Bécaye il est excellent Bécaye nit ku baax la Bécaye idol la Bécaye làmb dañu war promoteur yëpp bu année bi jeexee ñu tëgg spécial benn combat promoteur bu nekk joxee dara ñu tëggal ko bégaay bégaay nag ñàkkul dara may wax ne nag la de Guiers moo woon nit ni wax leen Père Diaw dama la bëgg a jàppale sa loxo bi ndax dafay metti ni wax leen Père Diaw mu ñaanal ma ma ñaan ci doole yi Serigne Babacar si ni maa ngi ñaan Lac de yàlla bu mu defati ci kaso bi 15 jours ma dem Bantamba TV jële fa information boo xam ni keroog dama bëggoon décrocher suma micro pour ñibbisi ndax la ma fa dégg dafa sedd suma xol may ñaan rek Lac de li ko dal mënoon nañu yeewu ñu ne Lac de Guiers génn na àdduna dara xewul lu war a am la am na mais Fatma Dia man xawma Lac de Guiers bu génnee lan la la mën a fayee non en réalité du question li nga ma laaj man du ma complexe lu ma bëgg wax dama koy wax loolu franc parler la ñëpp xam ci man Fatma Dia Lac de su génnee man mag la de dinañu toog def émission ci yow wut beneen chute bu dul sa chute wax ci Fatma Fatma Dia jàpp nga Lac de Guiers ni sa tonton la jàpp nga ne sa nijaay la jàpp ngir jëmmi Serigne Babacar Sy Lac la Guiers daal gëw ma sax ni nga taxawee soxnaam taxawee na ko ndax man xawma ma soxnay Lac de mais kuy xam na xam gor su mel ni yow ndax bi la de Guiers nekk ci kaso bi bi mu amee problème ba ni mu demee 100 mètres à 7 si jamono bu ne bu la laajee problème Lac de Guiers rek yaa ngi jooy noonu la as gor di mel yow as gor nga kon Lac de maa ngi lay ñaanal te di la wax ni kaso bi fees na del say nawle rek fa nekk kon bu fekkee ni yàlla dogal na nga nekk fa ñuy ñaan ñi nekk ci kaso bi yëpp yàlla génn leen ci jàmm yow ñu ngi lay ñaanal nga dellusi ci jàmm nga dund bay fàttaliku lii waaye Bécaye Mbaye ak ñi jël seen alal def ko ci yow ñu xam ne yàlla moo mën a fay Fatma ba nga laaj ma leneen ba sax xam naa moom moo baax rek yow it mii ñëw dem nga fa wax dëgg yàlla te bëggoo sax ku ko wax dem nga fa am na kàddu yoo ko dénk di wax rek àdduna am solo te ñun ñëpp ay taal bi Cheikh lañ ndax dañoo bokk Maodo bokk Mame Babacar waaw te loolu moom c'est a famille te la dëggeer moom moom nit ki booy nekk ak moom ci ci bànneex tey bu nekkee ci naqar da koy partagé ak moom di sant yàlla nag bu baax a baax a baax mais fi ma njëkkee ak yow nag instant yaa ngi la dëggeer quoi léegi waaw avant tout Balla Gaye tafaatin Tine kenn ki sama doomu deret la kenn ki nekk sama doomu bopp Tapha man ko am cofeel laa ci moom loolu leer na waa Bawal ndax Tapha Tine dama ko yàgg yërëm e, ndax dafa nekk mbër mu yaru nekk mbër mu baax nekk mbër mu ñàkk kiñaan nekk mbër mu ñëpp respecté mais ku seetaan box yi wala box bii mbërum caaro yi mi di def enema dañuy dóor nit sax mu sedd guy ñun waa géejawaay toll woon nañu foo xam ne géejawaay bu fekkoon ne amoon na benn suuf bu des ñun waa géejawaay ñu moom ko danu koy jaay def ko ci kombaa bi bu ñu amoon kër yoo xam ne géejawaay moo ko moom danu koy jaay def ko ci combat bi ndax ñun géejaway li ñu dëkk man sama doom ji li ma bëggoon mu def def na ko combat wu Modou ba dama yaakaar ni beneen combat du du mel ci man noonu mais combat wu tafatine bi moo ma intéressé c'est parce que bawal dañoo jog may gërëm nag ci biir bawal foofu nag bu ñu fa jogee mën nañu dugg ci leneen may gërëm mbay ndewaan mais mbay ndewaan mais lan la ko tafanti defal mais na ko génne dem leen ci mbay ndewaan mu wane lu ko tafaatin defal mbay ndewaan mu ànd ak bi mu amee vingt mille francs li jëntiwu ma nijaay ak bàyyi na ko jur dégg naa ku nekk di rëy lamiñ naan mbay ndewaan mais barke dem bi ñu daan bi ñuy daan bi nu booy ñaar di daan fan na lamin golo toog li nga xam ni moom la Balla Gaye def tafatin su fekkoon ne daloon na mbay sàmba mbay sàmba du ko attan bu nu yaakaar ne mbay sàmba xut bu samaan la wala lawlu yaay dafa joxe xelam nu joxe sunu xel Aziz joxe xelam Baye Ndiaye joxe xelam Balla Gaye boole ko xelam waaye INSEP sa jox ko seen xel mais bu nu jël mbir mi yaakaar ni mbay sàmba benn miracle la non non non non ñu koy remercier nag ndax bi muy metti moo Balla gay la woon mu dem toogi këram lamin Golo moo ko jëli ak ñoom Aziz Ndiaye ak ñoom Pam mam Mamma man jëliwuma ko ndax école de lutte Balla Gaye cinq ans teguma fa sama tànk ndax man mbëri jëriñu ma dara yéeguma nag mais mbay ndewaan na ko tafaatin téye te respecté ko mbay ndewaan dee na ci bawal ñun waxuñu waxi jéey ah jéey man waxuma waxam ah jéey géejaway la dëkk yonent bi Médine Makka la juddoo mais Médine na ko teral booy aji dëgg-dëgg aj ga dëgg nga ziar yonent bi da ngay dem ca nag fala aj ga ne fala arafaat ne safaak safaak marwa fala ne wër kaaba gi fala ne mboolam lu ñuy nangu ci aj à part nga bi màkk waaye yonent bi dafa am kóllëre ñu denc ko ca Médine kon mbay ndewaan na ko waa bawal bàyyi xel bàyyi xel jon bàyyil xel sëwru faal booy boobu nag di wax ñu koy wax ñagas ku ma neex la mën dama bëgg genre ñagas yi ku dëggu kuy wax dëgg kuy xaxar ñun waa géej waay ñooy kan ba kenn duñu xaar waa bawal lu leen neex nañ ko wax. ñoom ñoom bawal bawal ñoo daan tafaatin ku ko wax waxoo dëgg waxoo dëgg ku dul tafaatin Balla Gaye mën na la daan Balla Gaye mooy le meilleur xam nga dañoo def empereur mm. mais dañuy defaat beneen trophée le meilleur le meilleur moom la Balla Gaye di bëre pour bàyyi bëre solo wu le meilleur jël na roi des arènes jël empereur le meilleur damani su ko ñoom Aziz créé wul wala promoteur bi tëggat bal créé wu ko mais coupe bu ma amee cinquante mille francs am coupe danaa defar coupe le meilleur teg ko ku ko daan jël. Balla ba ngi gërëm Aziz di gërëm yaayu Aziz. yaayu Aziz. Non. C'est mon moussoir. mère boobu suñu yaay la yaayu Aziz Aziz xaritu ñëpp la waa Bawal ñoo gën a bëgg Aziz sax waa Géejawaay kon ñooñ di ruube di jéem a jaxasee Bawal ak Aziz Bawal Bawal yëpp dañoo gis seen bopp ci Aziz dogu naa ci Serigne Babacar Sy Tafatine dañu ñëw indi xam-xam indi doole ànd ak dogalu bi yàlla bëreeg moom def ko liñ koy def daan ko Tafatine nekk mbër mu sportif bi mu daanoo dafa jog ñëw ci cummikaayam ànd ak ñi nga xam ni xam nañ lañ mooy làmb ñu muur ko danaa la dóor ba ñu muur la mbër yàgg na ko wax kon keroog bu Tafatine defoon noonu Balla Gaye nu muur Balla Gaye mais Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye dégg naa kenn ku nekk di rey làmmiñ di wax naan Aziz moo def gala gi nii Aziz bi muy dugg si ci biir stade bi moo Baye Ndiaye booba temps bi ñu war a soufflé dafa jot. ban waaye yow dama ne ñaata lañ fi duur ndënd te daanu ndënd li ah bëgguma dugg ci yenn détails ah deru segg la wala deru gaynde der rek la loolu bataille psychologique rek la est xam nga coolu moomu coolu Adama Ngom la. bu leen neexee setan leen image su Adama Ngom bi bi mu def vidéo avant muy tëgg muy bis bi mu ko defee samedi wala vendredi di def image bi cool moomu coolu Adama Ngom la. noo yooyu ay wax la tafatine gauche droite la dóor Balla Gaye non yooyu ay wax la tafatine ku taw dajeeg nit dóor ko gauche droite ngoobu ci ngem li ràcc. Balla Gaye daw na ñu daw daje Balla Gaye tëj loxo droite ba xam nga fan la ko tëjee. xam nga loxo trois pièces la rotule biellet ah ak ak bi ne dafa tëj loxo bi léeg mu tëj ku léeg-léeg ngat ngàdd ko fermé ko ci biir dañu liggéey dañu liggéey rotule bi ah liggéey ferme bi moom lañ ko def ba tafatine loxo bi doxul te nag ku ne xam na ni carte mémoire u tafatine moom la Balla Gaye yàq daf ko dóor yóor gi yëngatu li nga ko doon waxoon liñ ko waxoon mu dem Tapha dafa di te bare doole mais dafa waroon daanu jamono bi ko arbitre bi di atte su bu ko Balla Gaye dooroon dégg ko fàqat ko ba def kat appi te man làmb ji kat appi laa waxoon Balla Gaye dellu ni ko nanga nga dal sa li nga yor ci énergie na nga ñëw toog Balla Gaye ñëw toog na nga tuus tuus mu gàtt mu dagg tuus bi arbitre soufflé ba ne ko danga koy def point mort point mort boo ko defee oto taal ko fii ba suba du départ. ñu demandé ma lan mooy point mort bàyyil ma ñëw ci côté point mort ndax y a xamuñu ni man dama doon bëri. point mort mooy mu daw tafu ko këtt ko ba du am premier ndax tabatin bu ko Balla Gaye distancé woon moo waral bi arbitre soufflé mu déclenché gauche ak droite mais ba ki Balla Gaye jógee ñu xeex mu kor ko freiné loxo droite bi dóor ko hypercule carte mémoire bi yàqu. ñu delloo si ko bi mu ko dóoree ñaari coup dafa fixé colonne vertébrale bi daf ko teg ndengeñ. ba fixé ko ndax colonne vertébrale mooy bëre tànk yi jogo yow mu ko Balla bi muy bëre li commencé ci ndigam ba ci kaw mi ngi bëre mais Balla Gaye ci biir tànkam ma ngi doon def ay erreur am na benn maman bu ko tafatin cabaxaloon da koy ñàkk. mais boo gis nañu nax ci. non daf ko dafa xeex ak moom fixé colonne vertébrale bi tànku tafatin yi jogo yow fekk na carton noir bi yàqu na yaram bi Côte d'Ivoire yàq nañ ko yan nañ ko lu mu manul neer yi yéeg mënatul dara xol bi dafa am graisse amul compétition moo fatt Balla Gaye cabaxal ko à droite ko bi ñuy dem bu fermé woon loxo bi Tapha Tine da koy beene mais dafa tëj loxo ba moo la bi ñuy tëdd jël ba taatu Tapha bi wu ñëwee Balla Gaye dafa tëdd wet ba nga laaj ma leneen. yaa mën a bëri euh, li ñu dese ci waxtu bareetul du ma na du ma ne quel adversaire pour Tapha euh, pour Balla Gaye mais quels sont laay wax ñan ñooy ay adversaire u Balla day noppalu. Aziz bi mu toogee ci plateau bi dafa ne Balla Gaye d'ici quelques jours day am combat Aziz moomunu moom mooy bailleur bi jumaa ji dafa am imam si wàllu lamb noo ko mag waaye mooy suñu imam ci lamb mooy def alalam nekk nit ku am xam-xam nag Aziz am na licence mais Balla day noppalu ba mbër yi bëre ba pare ba carte gi tas mbër yi di bëre du ma tudd benn mbër bul ma tuddal ma sàmba wala ma demba wax oh, ko dama ni carte gi làmba jaa ngi waaj a tëj bu tëjee Balla Gaye toog ak buri deux mois ba trois gis njabootam un mois la fay def wala deux mois ñu delloowaat ko INSEPS bu defee deux mois ñëw def fi quinze jours delluwaat def deux mois su boobaa promoteur bu am xaalis na ñëw waxaale Balla Gaye ak adversaire bu mu bu mu war a bëreel te ñun staff beeg Aziz ak Pape Mama ñoom ñu xool ba xam ni war na bëreek moom mais Balla Gaye day noppalu de. mais dama ni Aziz maay magam Aziz sama wax ji du ko du ko teggi dama ni Aziz ama man ama seen man ku ko respecté la ku ko bëgg laa dama koy seere ba ba nit ñu demande comme quoi xanaa per Diaw dafa faral Eumeu Sène may ma ma wax la li tax Eumeu Sène daan Balla Gaye deux fois na ko ma wax ko tey première combat wu Balla ak Eumeu Sène mm. booba Balla Gaye mi ngi soogam jënd këram gii ci golf soxna nekk ko fa Balla Gaye amul soxna bi combat bi jour jeudi laa dem kër Balla Gaye wala vendredi bu ko Balla Gaye seetaanee dana xam ne c'est mu am benn mat laa buñ ñu fa doon yóbbu maa ànd ku ñuy wax Ibou yeneen booy yi du ma leen tudd bi ma yegsee dugg kër Balla booba téléphone yii man amaguma ko maa ngi fekk Balla yor ko ma ñëw ñu commencé toog ma ne ko Eumeu Sène fas wu doon daw Cees la di fa raw te xamuloo ko Eumeu seen su sujet la mu déglu ma keroog bi ñu bëree jee ay big feutre la ñu laxas ci loxo bi bande ko bi fikk ko Eumeu seen daane mbër mësuma ko mas ko faa daan ndax bi ma ko cabaxalee bi mu ko bi mu ko sexee bu Balla Gaye tekkoon loxo yi def loxo yi yet mënu koo daan mais daf ko cabaxal bal la fudd di wekkal ñu cabaxal ba daanu seen deuxième combat xam nga lu xew war nga Ndiaye na ko Balla Gaye téye ak fukki loxo man Balla bu ma téye Balla bu doon sama sago day def déclaration ni Père Diaw bu mu nekk ci man dara noo defal ndànk dafa jot nag man dafa jot ñu écarté ma ci lépp Balla ndax ñi koy jéem te bëgg ko maa ngi ñaan balaa Balla di bàyyi bëre loolu yàlla na am ci daraja yonent bi ba xam Balla sama lan lay wax deuxième combat bi Bombardier daan Balla Gaye mbëri yéeg ci kat baay Baye Allé Baye Allé ñëw ni wàcce leen oto bi te ñi mën a dugg ci biir oto bi nañu dugg Balla Gaye def erreur de communication yéen ñëpp seetaan ngeen ko am problème ak Aziz ndax Aziz baayam laam mu nekk saytaane soosu nga xam ni moom la nit ñi di xeex guddeeg bëccëg sama diggante digganteeg Balla Balla bi Double Less génnee àdduna laa kër kër Balla ak keroog bi muy bëreek booy ñaan ñu ni suba la man Balla duma ko seet duma ko woo li may jëf li sëriñ Babacar Sy waxoon ni bàyyi leen àndu jëmm joge mbër mi te yéene woo ko dara nga sore ko te yéene ko dara moom la ba sama Serigne bi wax. deuxième combat wu Eumeu Sène ak Balla Gaye Aziz Ndiaye ñoom ñëwuñu Balla Gaye dem ak ñun ñii yàlla indi ay dogalam mais moo wax la benn affaire. defuma choix ci Eumeu Sène Eumeu Sène bu bëree teeg Balla bu ko Balla narta daan bu ko jekkoo sax nu nu daw dugg ci géew bi tas combat bi jaral nu dem tëddi 100 mètres. dama ni ba Eumeu Sène si kattanu yàlla niil wala Balla Gaye daan ko mais Eumeu dootul daan Balla Gaye ci kattanu yàlla su ko jekku woon ma daw dugg ci biir géew bi ak ñeneen ñu atte kombaa bi non dama ni Balla Eumeu Sène daan ko jeex na xam lan mooy may Eumeu jàmm du ma bu samaan du ma lawlu yaay mais dama ni Eumeu Sène bu nu jëlee te nag su yeewoo jël ñu de ndax ma ngi ma ngi fin de carrière non déglul ma ngi fin de carrière mais ñun defuñu choix ci Eumeu Sène rek dañu def choix ci mbër yu mag yëpp duma ma tudd benn turu mbër bu boo limee ma noppi boo fi limee benn mbër mu dul Eumeu Sène ma noppi dama ni bu jëlaatee Balla Gaye suñu bëree ba pare yow da ngay daw ñëw fii ni ma Père Diaw li nga ma waxoon mën man du duñu yàlla mais am na loo xam ne yàlla du ko def yàlla yàlla Balla Gaye lu mu am ci làmb liggéeyu ndeyam la nun danoo am ndey ndey yu baax la ñu am mais Balla Gaye pour nit gën ko yaay yombul maire Khoudia Diop gis nga maire boobu maire boobu noo Aziz Aziz lu mu baax mënta jot yaayam Aziz yaayam lu baax lu koy digal masu ko tàggaleeg nit masu ni ko Aziz bàyyil kii te Aziz xamul mbon Aziz bi muy dugg ci biir géew bi defu fa cinq minutes c'est parce que mooy agent wu Balla manager bi baabu la mais li Aziz yoon baabu mënu ko Aziz dugg comme quoi li état bi wax ñu xaxar ci Baye Ndiaye wax ci lu ne tax na Aziz dugg ñu pare fito gàllaaj yi ñooñu mën lu indi Aziz pot tamaate biñ ko jox Aziz dañ ko ko jox ni ko demal sotti ko ci boppam. ndënd li dañ ko Balla Gaye ko tëgg jox ko Aziz mu génne ko butéel yi dañ ko jox Aziz Aziz wuti na ñaan man wuti naa ñaan man ñaan naa ba ba ba sarax xorondoom xorondoom yi jënd naa dugub sarax leen ki ma ko jox ci biir stade bi mu yóbbu ko ca xorondoom nga buñ dana benn bis dana ni keroog Père Diaw indi na kilo dugub jox ma ko ni ma demal sottil ma ko ndax booba xorondoom nga ma nga ca wetu fi yi di dugge te bëgguma fa dajeeg waa bawal kon def naa sarax ba def saraxu xorondoom ñaan ci doole yëntu yàlla Souleymane mi daan wax xorondoom yi pour Balla Gaye daan. ñun làmb warul am deux titres empereur mënu fay am roi des arènes am fi roi des arènes lañ gën a validé que empereur sa doom Balla Gaye nekk na fi roi des arènes perte a jël empereur coow li bari ñu ne empereur luñ créé la mais roi moo fi am loolu nan nga ko. dafa malaayika yi ñoo créé empereur wala jinne yi kan moo créé mais diggante Tapha ak Balla Gaye su Aziz crééwul bu Baye Ndiaye crééwul woon Aziz day mottali rek empereur ñu naan dana am ak du am làmb ji du fees mais làmb ji Baye njaay mooy bopp moo ko defar ma dellu di wax ni Baye Ndiaye xale bu baax a ngi noonu Tapha Tine naka waa Bawol téye man waxuma waxi jéey jéey sànniwuma ko xeer jéey bawol bawol la na jël un milliard may tafatin dégg naa nag ñu naan jéey rek moo sonn ci bawol bawol bawol yépp sonn ci combat bi bawol bawol yi li ñuy def ñaan ci combat bi pour man la yàlla xamul xaalis yàlla xamul Aziz Ndiaye doxul ci dogalu Aziz Ndiaye wala dogalu Baye Ndiaye wala dogalu Balla mais Boy Niang mii moo nu gënoon sonal te dafa nu daan te dañ koo muñ kon Fatma Dia empereur dépassé na le meilleur mooy am ki la le meilleur mooy ku koy créer Balla Gaye bëree ko daan ko su boobaa nag man ci lay bàyyee làmb nekk nga roi des arènes dégg léegi le meilleur nga bëgg le meilleur maa ngi koy ñaan waxuma Aziz def ko wala Baye Ndiaye mais ba promoteur bu ko tëgg maa ngi koy ñaan bu ñu ko defee baax na buñ ko deful man dana indi sama kubu le meilleur teg ko ci stade ba may gërëm Moussa Fall bu Sathiès di gërëm Ibou Dioum di gërëm ñi Ibou Dioum di toogal yëpp di gërëm Pape jum di gërëm mère Seyni bu sa Thiès mère Seyni bu sa Thiès mère Seyni bu sa Thiès yaag sa doom di suma jarbaat maa ngi leen di nuyu di nuyu école du lutte Balla Gaye bi yëpp te di wax ne bàll Gaye am na lu ma la bëgg a wax Balla gay yaag fils de Balla Balla Gaye ku téye fils de Balla ga Balla xam nga bi muy toog ci ci ci mekaayam morceau bi mu takkoon ci ndigg li dafa dagg Balla gay takkul benn ndomba Balla Gaye yàllaa ko jox victoire Balla Gaye ñetti ndomba la takk bi mu ngemboo ba pare damaa dem ci Asni ko xanaa dafa def beneen ngemb ni ma ngemb lii la am am na ñaari sengoor yoo xam ne bi ñu bëggee takk damaa bañ bi ma koy joxar bi boobu damaa yéeg ma ne ko ku bëgg a bëreeg tafatin da ngay yësti di ko korti di wàcce colonne vertébrale bi bàjjo bi mu déglu ma ndax moom mënumaa xool moom Aziz Balla Gaye maa ngi lay gërëm ci fi nga teg fils de Balla Balla Gaye sa poulain bi nga xam ni moom nga gën a yaakaar pour mu mën la relever ci biir école bi ñoom Gàkku de ñoom yu sunduur ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu mais fils de Balla bokk ni ci ñi nga xam ni àdduna moo la ci gën a bëgg waaye mais nit rey na doomam nit rey na jabaram histoire bu ni am na ci àdduna seytaane def na fi lu ne mais fiis de ball la du mbër moo xam ne Balla gee def ko war a ni ko téye def ko ci boppam sës ko ci boppam xam ne li ko Sa Thiès yéene fiis de ball yéene na ku ëpp loolu maa ngi gërëm ki nga xam ne mësta wax sax ba tudd ma mooy Youssou Ndour doomu fils de ball la moom yaakaar naa ne dañ ni ko euh, fils de ball la doomam la père Balla bàyyil ma ni père Balla man lijjantiwu ma sax Youssou Ndour xaw ma ni sax mi ngi bëree ndax bi ma ca tolloo di jëli ci Malick Gakou teraanga bu doon 500000 sax lijjanti naa ko ay 100000 francs indi ko man nag képp koo xam ne da may seet si may wax sama doléance nga doyal ci wax ji wala nga wan ni ma danga war a arrêté wax ji am naa mat gu toll ni dootoo ma laaj Fatma Dia na mel ni émission baa ngi waaj a démarré soo ma xoolee benn bët dootuñu wax dama ni Youssou Ndour combat bi ak Mor Kankan dog naa ci Serigne Babacar Sy maa ko monté maa moonte Pape mbaay mu daan maa monte Ndigal mu daan maa monte Maguette Seck mu daan maa monte Mor Kankan mu daan combat Balla Gaye bii nag joué naa ci ay tour te dama doon xaar seytaane rajim yooyu ma jubbal di wax moom ban naan ko sujet sujet la xam nga lu sotti rek am borom nañu bàyyi jóge mbër yi di fen fen kenn du ci tabax ay étages fen kenn du ci tabax ay 4x4 fen laay wax fen kenn du ci takk jabar di ci yor ay dépense mbër ay nit yu dëgg ñoo ko war a jóge tafatin na téye ñangas na téye booyam yooyu tafatin na xam ne Balla Gaye war na ko mën a daan gàkku deux euh, gàkku deux nag bërka démb bi mu daanee toog na ci plateau bi ma jub ko mu ni sunu baay a ngi nii maa ngi gërëm Daouda Seck mi ko tuddee gàkku ndax gàkku jàmbaar la ci politique gàkku doo di jàmbaar ci làmb ji wallaay bu cër doon jaay suñ ko jëndalee cër ba mu toll ni mbër yi li muy doon ëpp na empereur waaye nag ci biir làmba ji bu ma ko wooyee mu daw déglu si ma Maguette Seck bu ma ko mu ñëw déglu si ma Fils de Balla bu ma ko wooyee mu ñëw déglu si ma maa ngi ñaan maa ngi ñaanal kii am ak lamin Golo nu mu tudd mbës muy xale bu baax Lamine Golo man day école de lutte Balla Gaye caaxaan yóbbuwuma fa waaye lamin Golo man man mi ko sànni woon xeer yàq ko lu mel ni xeme ñun ma kan mooy lamin ma ne xamuma ko dogu naa ci Serigne Babacar téye naa lamin du ma dem këram nag soxlawuma numéro téléphone te bu ma seet téye googu Serigne Babacar si wax ni nañ koy téye sa nit ci biir xol téye naa lamin Balla Gaye ñu ngi lay sant ti di la gërëm te di la ñaanal yàlla te di la xiir ci Baye ak Aziz Balla téyel Baye téye Aziz téyel Sa Thiès ndax téye nga ko ndax yéen a bokk ndey ak keroog bi ngay bëree Sa Thiès nekkul nit ma waxate ko man Sa Thiès du ma sax wax ay waxam waaye sama dooma Sa dogu naa ci Serigne Babacar Sy boo ma naree tàggoog waa kër Double Less yàlla nañ ma tàgge ndax Double Less gërëm na ma xam nga fu ma gërëme boobu Malick Gakou mooy dëkk moo nekk ministre des sports te danaa fekki Double Less ministre des sports la ñu daje mu ni ma maa ngi lay jéggulu sama njaboot ci li nga ciy daj Double Less moo ma ko wax kon njabootu Double Less luñ ma def Sa Thiès bu jàddee ma teg ko ci raay bi Balla Gaye bu jàddee moom du ko teg ci raay bi are laa koy. waaw bu ma ko dooree are nag moom day sëgg rek jox ma ginnaaw gi kon rek ma dellu di gërëm Fallou njaay bu baax a baax Fallou maa ngi lay ñaanal wér Fallou di la ñaanal jàmm. Fallou di la ñaanal salaam te di wax ma Dia sa dred la te fallu nit ku ñeme dëgg nga lii ma lay wax amuloo ci benn xalaat boo naan Père Diaw day indi affaire de saytaane ndax man lijjantewuma la yaakaaroo ma ci yow dara sa jukkoo ma neex moo tax ma lay dund maa ngi ñaan yàlla may la wér yàlla bàyyi la ci làmb ji nga dem bay tëgg combat yi gën a mag te sa digganteeg Baye ak sa digganteeg Aziz sa digganteeg promoteur yi yàlla na sedd guy sa digganteeg Diop nag na ci promoteur yi génn ndax yow rek yaay former mbër ba mu baax ñuy ñëw di ko bëgg a jëlee ci yow Diop mbër yi nag na ngeen am ngor man lijjantewu ma leen yéen ñëpp Diop 2 bi mu mettee Fallou Ndiaye rek nga gisoon Fallou Ndiaye nag mënu la tëgg à vie mais man su demoon ba beneen promoteur nar la tëgg na ñëw ci Fallou ni ko lii de boo ma ko mënee fay baax na boo ma ko mënul fayet sama combat yaa koy waxaale kon maa ngi ñaanal ñëpp. te di jéggulu ci kàddu gi di ñaanal baay ale di ñaanal suma baay di ñaanal baay yépp yal na yàlla jéggal leen di gërëm waa seedo sebbe lii bu ko dagg de di gërëm waa caareen di gërëm waa waalo Balla Gaye waalo waalo yi buñ koy faral doomu waalo lañ ko tudde Balla Gaye Nduur yal na yàlla leeral bàmmeelam ci bérébu Seynaa Limaamul Mahdi kon Balla dil bàyyi xel waalo ball di bàyyi xel géejawaay ball di bàyyi xel Casamance li ma fi wax bu ci kenn dagg dara fan ma jël li ma wax loo ci dagg bu ma ko seetaanee lépp lu ma ci wax nga ragal ko di wut lu ma naqadi eh, lu ma nit ñi yuuxoo ba nga dagg ko Fatma Dia dootoo ma laaj jërëjëf jërëjëf 20 ans d'existence Assane Ndiaye et son label Bawol Production le 27 juillet à l'arène nationale mbokk yi déglul sargal Abdoul Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ni 20 ans la ànd ak Abdou Aziz Ndiaye te dara ñaawul moo tax combat bi dox ci diggante Moussa Ndoye ak Mbaye Guy gi moom laa koy jagleel juróomi grand combat la bi war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak armée bu ngéwél 19e édition drapeau Aïda Mbodj koo koy jigéen ju mën góor la lionne de Bawol li gën a rëy ci bés boobu Aïda Mbodj moom lañ koy sargale ci bés boobu la ñuy sargal mbokk yi Badara Gadiaga le bienfaiteur de Grand Dakar original boy town Kéba mi bëgg lamb bëgg lamb jëm ca kanam Assane Ndiaye da ko fay sargal maa béyi borom Bambey saltige bu mag bi Assane Ndiaye da koy sargal ci bés ci bés boobu mbokk yi Valdo dina fa jàkkaarloo ak boy Dakar Farouche jàkkaarloo fa ak Kaw Cissé ak ay combat préliminaire yu yéeme sax ndaxte vingt ans du ay jaaxaan Assane Ndiaye ni damaa waxtaan ak amateurs yi ñu ni ma entrée supporter bi Coca boisson originale ETDR établissement Touba Darou Rahman Distingo 1xBet kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bésu delloo njukkal le 27 juillet ci arène national ñu ànd ci ak Bawol production